yenn yi daaw ren nag lu ma gis dal na sama xel ndaxte yokk nañ fukki poste ak ñett yi nga xam ne yenn yi daaw seen courant bi dafa commencé woon fees ñeneen ñi seen courant bi dafa commencé woon faible moo tax ren ñu yokk fukki poste ak ñett si wàllu ligne yi nga xam ne mooy yóbbu courant bi si biir kër nit ñi tiire nañ presque juróom-ñaar fukk ak ñaar kilomètres yoo xam ne def nañ ko si ligne basse tension indi nañ fi ñaari junni làmp yoo xam ne pour leeral Kaolack la indi nañ si aussi lu moo tolloog junney compteur yoo xam ne pour ku bugg courant di nga ko def. léegi si poste yooyu nag ñu def mettre en service poste bi si suñu ginnaaw dafa am importance. parce que poste bi mën na jëlee courant centralu kawoon bi mën na jëlee courant aussi fii ba Mbour pour alimenter Medina bàyyi